auzu billahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu Cheikh Sène dama bëgg li ma gis fii ndax képp koo xam ne dangay jàppale président Macky Sall bu foo ñu woo muy guddi muy président mbooloo mii nga xam ne danga ko dajale du say moyen du say dara nga dajale leen fii ñu wuy si la danga am yëg ci doomu aadama loolu moo tax nit ñi wuy si la ndax foog naa ne mos naa ñëw sa kër boobu final la woon ma lay indil ay mayo ay lépp kay jour boobu kenn xejul sa kër sa liggéey bu rafet bi ngay def fii nii man Salla Koleera xam naa ko bu baax a baax a baax tey nag laa gën a kontaan ci li ngay liggéey bi nga jógee ne président Macky Sall laay jàppale. ñi nga xam ne ñun fukki at ak ñaar ba léegi ñu ngi jàppale président am ñoo xam ne ay kanam yu romb nañ leen fi buñ leen romboon dañuy xeelu ñëw toog fii ndax yow yow yow waa ñuy dangaa yokk te politique dañu ne ku wàññi ku wàññiwul rek. yokku nga di nuyu nag Modou Gueye mii nga xam ne xale la ñëw ci parti bi keroog ku gis mitinam bi mbooloo mi fa ne deful dara lu dul sama mouvement bi ma yore woon seeyal naa ko ci APR loolu bu ko defee président Macky Sall li ko defal defal ko Ablaye Thimbo defal ko ñun ñi nga xam ne ñooy responsable de base yi nga xam yàgg nañ ci parti bi bu ñu amee ku mel ni Modou Gueye dina fekk ñi fi nekk ñoom Ablaye Timbo ak ñoom ñi nga xam ne Abdou dina ñu gën a am doole boo xam ne dinañu liggéeyal président Macky Sall yow Cheikh Seck nag mënuñu laa fay Cheikh seen li nga def mënuñu laa fay ndax li ñu fi fekk kat yaakaarul woon nañu diñu fekk fii lu day nii ndax am na koo xam ne nekk na ci parti bi ñaar fukki at wala fukki at ak lu topp mënul dajale lii lii nga dajale sa njàmbarte la li nga dajale sa ubbiteew ba yaatal sa kër ku ñëw yegg yow gërëm sa jabar bi nga xam ne keroog moo ma indi lettre soutien man ne lépp lu ma jàppoon moom ko tudd ngeen ci président Macky Sall dinaa ko bàyyi ñëw fii Modou Gueye bi nga ñëw nag nga ne jeunes yaa ngi nii femme yaa ngi nii bi lay Modou Gueye dina ci jàpp daf cee jàpp avant muy am dara def cee jàpp balaa muy doon dara ndax ñun xam nañ ci dara responsable département bi ñun la bu ñu xewlee dara dem këram ay millions yu bari lay teg suñuy loxo ñu dem def suñu programme kon nag bu ngeen jàppee jàpp gor bu ngeen bàyyee bàyyi bor Cheikh Sène fi nga ta teg sa tànk foofu la Modou Gueye mii dina la jàppale xale bu yaru la xale bu teey la xale bu xam fa muy teg tànkam la kon nag bu soobee yàlla ñun ñëpp ñu fi nekk dinañu àndandoo ak yow liggéeyandoo ak yow ñun ak jeunes yi ak femmes yi ak soo de Soda Ndiaye responsable des femmes ak ñi nga xam ne nag monsieur le maire Amadou Diarra dañu joxante ak moom loxo di liggéey liggéey bu rafet kon boo ñëwee day yokku waaye du wàññeeku kon nag dalal nañ la bu yéeg baax incha allahu rabbi lépp lu ñuy def dañ ko defandoo ak yow lu ñuy xàcc dañ ko xàccandoo ak yow buggoon naa guddal waaye kii Modou Gueye day dem. trois minutes rek lañ ma mayoon maa ngi xaabaabal di nuyu nag ndaar